ma wax nag damay leeral bëgg naa mais bëgg gi dama am kilifa kilifa boobu ma am nag dafa dafa dafa digale ne nañ ko déglu bu ngeen ma laajee nag dama naan bëgg naa mais dama toog di déglu sama kilifa te xam naa ne président o moment buy tànn dina tànn ki gën ci ñun te man ni ma mel di républicain ku président tànn dinaa ànd ak moom dinaa liggéey ak moom dina investir dinaa mouiller le maillot pour véritablement la victoire éclatante au soir des élections de la coalition Benno Bokk Yaakaar li tax ma bëgg a nekk nag liñ gis fii rek tey euh, lu bëri euh, dafa nekk léegi ay compétence compétences décentralisées njàngale mi nekk compétence décentralisée ci conseil départemental euh, Mbacké de manière générale fi ma bokk ñu gis jafe-jafe yi nit ñi am ci njàng mi muy champ bu yaatu comme yeneen yi mais bu ma jëlee benn rek ci li nga xamante ni bi moo nu fi dajale woon tey nga xam ne comme on dit l'occasion fait le larron njàng mi gis naa ne war nañ ci mën a liggéey lu am am am solo pour que véritablement li ñuy waxee rek ne Touba wala Mbacké amuñu cadre renver ñu mën a renverser tendance boobu te il faut quand même investir dans l' éducation te loolu euh, ressortu ak responsabilité conseil départemental la man militante de l' éducation la euh, damay xeex pour njàng damay xeex pour njàngu jigéen dama bëgg tey fu góor nekk mën fa dara jigéen man fa dara te loolu ci njàng mi lañ ko jëlee lenn la ci point yi tax man ma intéressé ak conseil départemental bi ak yeneen fànn yëpp yi nga xamante ne bi ay compétence su conseil départemental la buñ ñu ko dénkee jigéen lañ dinañ utiliser li nga xamante ne bi mooy jigéen ni muy li ko yàlla def ci moom ñu mën a xëy xëyandoog yéen góor ñi ngi wàcc ngeen ñibbisi ci kër yi toog ñu duggaat ci waañ jox leen lekk jox leen naan multitâche boobu yàlla def ci ñun bu ñu essayé jigéen ci conseil départemental defe naa war na mën a jur développement wu dëkk bi. at atu lay doon El Modou atu la parce que bu ñu jëlee euh, carte euh, électorale u Sénégal particulièrement département bi ñu nekk jigéen ñi ñoo fi ëpp di voté jigéen ñi nag jot nañu mos seen bopp mos seen bopp mooy ut ku seen njiit. ñoom jigéen jiite leen ñu xool ndax boobu ba tey ay góor ñuy jiite dafa jot nag ñu xalaat jigéen ju jiite. frustration yi li may wax sànq ci tubaab mooy président mënul wàcc ci buntu kër gu ne mu teg fa saaku ceeb wala frust mu nomee nit li mu mën mooy jox ay tànn ay nit jox leen ay ndomba ci laa bokk keneen a keneen ci la bokk may woo nag cadre yi nga xamante ni président da leen a wóolu dénk leen ñuy gestu seen askan de manière générale parce que yëfi du yëfu APR yëfu Sénégal la bu ñu gestoo Sénégal dinañ gestu jeune APR yi loolu nag président day am ñu mu jiital. ñi mu jiital moom mu nekk commandant de bord bi ñun ñii nga xamante ni moo ñu teg fi ñu teg ñoo war a delluwaat ci population yi te bu ñu delloo ci population yi ndaw affaire yi lañ ci gis seen bopp tax ci population yi lañ bokk.